Abdoulaye Bob asalaamualeykum. waaleykum salaam El Hadji Mouhamadou Biteye. maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. loolu feggoog yow ci suba teel gi. Adama sa jingal bi sekk na. <laughs> dem ko xoromal tuuti. géej <laughs> nga ci tool yi waaye ba léegi. Ah. ileer gaa ngi fi. waa jafandu rek xam nga. nga ci sa mënin. <laughs> xam nga dama laa jàppal tànk rek. xam nga xam nga bu ma la gisul yenn heure ñëw jàppal la tànk ndax yow da di sama waay. ba ma géej ñàkk. Ah? warta géej warta géej. yaa ngi may boole wi de ah? xel sa xëy seeg ileer bi ci tool yi. Ah. am na ci solo waaw nañu gàddu ileer yi jublu ci mbay bi. am na ci solo am na ci solo ayca Abdoulaye Bopp mu mel ni nag eh, ci li gën a fës ci bopp yéenekaay yi ñu xëyandoo tey ji eh, dañu koy tàmbale ak Walfadjri yéenekaay. Walf Quotidien xëyee tey Ousmane Sonko daanaka am na pexe geneen goo xamante ne bu munta dem élection am na candidat plan B ba fës na Bassirou Diomaye Faye la tànn ngir fas yéene koo jiital ci élection présidentielle ñuy jëm Walf Quotidien am ci taxaw seetlu ne Ousmane Sonko ci jamono ji ma ngay pousse eh, pion mission ngir xool naka lay doolale kii di Bassirou Diomaye Faye loole nag déggoon nañ ci waa Pastef yéen ki abit Walf Quotidien dikkaat ak ñun ci combat Lac de Guiers 2 ak Siteu Siteu daanu na nam waaye nag moo gagné ndax daanaka moo bëre bëre ba bu ñu sukkandikoo ci wall Walf euh, Quotidien ayca bu ñu jógee ci Walf Quotidien dañu dem ci 24 euh, heures taxaw seetlu la def ci candidature euh, Bassirou Diomaye Faye mi fas yéene dagaan baatu askan wi ci turu Pastef parti googee ñu tas Bassirou Diomaye Faye candidature am la ca laxasu ak la ko Sokek la ko Wundu la ko Camuna Dab eh, Biram Souley Diop ak eh, Guy Marius Sagna ak Abass Fall ak eh, Malick Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ànd nañu ngir dooleel Bassirou Diomaye fay ci googule candidature waaye nag ndajeeb njiitu réew Macky Sall ca Fatick jur na coow jot naa dànkaafu ñu bari dal sax ci ay cadre Casamance mel ni kuy wax ak Atepa yi loole nag doon lu metti lool Seydi Gassama mi xam le ne njiitu réew Macky waxee noonu jeme ci askan wi. acca ñu dem ci turbine CEDEAO ñàkk ca cour suprême moom Ousmane Sonko deltu na ginnaaw ci candidature am mel ni nag euh, basiru jom ay fay moom la bëgg a jiital euh, tànn na ko mu doon plan B bu euh, Pastef moom la fas yéene demee ci élection nañuy demee ci parrainage bi waa gëm sa bopp fës nañ ci mu ngi ci yéene kaabi di turbine turbine di ñu degtal njiitu réew Macky Sall ay weer dong moo ko desee ci boppu réew mi waaye ma ngay dànka foog di menacer kaddu yamu yokkati ca Fatick doon lu tàmbalee jaaxal ñu bari mu ngi ci yéene kaabi di turbine dem ci source a euh, source a Mouhamadou bi tey mu ngi ñu dégtal plan B bu Pastef fës na Bassirou Diomaye moom la ñu tànn yéena cabinet nag euh, dossier moo ko tënk ci jamono ji moom candidat bu ex Pastef euh, ndax dossier judiciaire goo xamante ne moo tegu ci ndoddam ñu toppee ko tamit li nga xamante ne mooy dañ ko criminaliser googu les dossiers fas yéene ko yóbbu ci instruction bokk na ci Bassirou Diomaye fay di candidat bu Pastef yéena cabinet juróom-ñaari mbir yi ñu toppee Ousmane Sonko moom lañ ko toppee ci jamono jamono ji na maître Ousseynou Gaye joxe na ci xalaatam ne bu ñu deful ndànk Bassirou Diomaye Faye mi de candidature am mun naa taq suuf lool ci élection présidentielle yu 2024 euh, ndax saay buñ ko euh, càmbaree dossier recours xejatu fi euh, ak li des ci élection yi ba tax na parrainage guñ koy tuddal sax mun na cee bañ am dara. mandat la mandaté. mu ngi mandaté Bassirou Diomaye Faye moom la Ousmane Sonko mandaté ci jamono ji mu doon candidat bu Pastef nara dagaan baatu askan wi ci élection présidentielle yu 2024 yéen cabinet euh, Ousmane Sonko euh, daanaka deltu na ginnaaw euh, ca la mu waxoon la mu waxoon nee na waqeet doonatul daanaka candidat bu Pastef ndax ni ko yoon tenkee ba tax na mu fas yéene xàllal yoon kii di Bassirou Diomaye fay Mouhamadou Bité ñu ngi seen euh, jëru gi ñu dénk wàllu koom pour réew mi Mamadou Moustapha Ba euh, mi euh, de dellu soit ci fond force Covid 19 lu bal gañu ne moo ci amoon la ca xewoon yëpp dossier gi ni mel yoon mu ngi koy topp mu ngi ci yéen a di la mandat. ayca ñu dem ci critique critique mu ngi ñuy dégtal njiitu réew mi euh, Macky Sall mel na ni euh, mayeetul dara ci jamono ji ci mbirum Ousmane Sonko ba tax na bëggatul kenn ñaañ ko ci njekk nañu bàyyi yoon def liggéeyam dànkaafu na ay cadre Casamance ku mel ni Atepa Goudiaby loolee nag euh, Birahim Seck bu Forum Civil ak Seydi Gassama njiital Amnesty International ànduñu ci ni njiitu réew mi Macky Sall waxee jëmee ci Atepa élection présidentielle yu 2024 Khalifa Sall moom bëgg na fexe ba Sénégal doon benn ñu fexe ba bay dundee Mansour Faye sax euh, xamle na ko yéen kaay bi moo ñu ko yëggee. tey jii ci suba enquête yéen kaay lan la enquête tey ñu enquêtal euh, koppar yi nga xam moom la Sénégal war a doxee ci atum 2024 euh, projet de loi de finance googe xayma nañ ko ay walisu xaalis yéen kaay bi moom la ñu xaymaal daanaka natt nañ ko ci 7003 milliards ak yu toftal bokk na ci bëgg nañu ci croissance bi atum 2024 ñu mun caa yegg ba 9 virgule 2 pour cent mu ngi ci yéen kaay bi di enquête ay ca suñu jantub réew di la soleil. 7003 euh, milliards euh, yu toftal euh, muy xayma koppar yi nga xamante mooy budget 2024 bokk na ci fañ koy jëmale ci wàllu investissement yeneen ak yeneen soleil xëy na ci indi leeral bokk na ci tamit lu aju ci wàllu bor gi mun naa oyof toy ci ndoddu Sénégal Mouhamadou Moustapha Ba moo ni waxee ci biir yéen yi di la soleil. acca ñu soobu ci wàllu tàggat yaram tàmbale ko ak stade yéen kaay. Gaynde Ndiaye Mbarawacc gaynde yi defati nañu jàlloore keroog seen digganteeg. ak euh, Soudan du Sud dañ ko dañ leen a noggatu daan leen ñeenti euh, bal ci dara bokk na ci Sadio Mané mi nga xamante ne dugal na ñaari but ya euh, yemook nag centième maanaam téeméeri sélection am ci équipe nationale ni équipe nationale footballée ci googule match jëm ci éliminatoire mondial 2026 moom la yéene kaabi di stade xëy duñu faram-fàcceel acca suñu làmb nag tey jii fan la dem xanaa arène nationale arène euh, nationale Lac de Guiers 2 mi gagné Siteu ci avertissement yéen ak bi di suñu làmb ne Siteu euh, daanu na waaye nag mel na ni moo daan ci googule combat ndax wane na fa euh, xereñ wane na fay tamit song ak dóor jàmmarloo ki nga xamante mooy Lac de Guiers 2 mi mujjee nag jëlee ndam la ci avertissement goo xamante ne joxoon nañ ko Siteu yéen ak bi moo ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk léegu Lac de Guiers 2 ci làmb ji bu jógee ci Siteu kañ a sampal